Depuis 2015, la direction des ADS dirigée par Pape Mayel Diop dañoo ñëwoon dafa tagal ñu benn projet bu ñu tuddee un agent un toit indi fa benn promoteur bu tudd Modou Khoule Modou Khoule ñëw proposé ñu ñetti site trois sites jas Diass Sébikotane ak Lac Rose ñuy proposer terrain yooyu ah dañoo waxoon ne kenn ku ci nekk dañ lay dagg trente mille francs pendant trente six mois mais li ñu def li may njëkkee sax mooy direction ADS li mu li mu def mooy li njëkk a mooy jël suñu retraite complémentaire daal koy. def garant fay promoteur bi cash te waxuñu ko benn ñaareel bi promoteur bi biñ ko fayee premier compte biñ ko cent cinquante millions lañ ko jox mu waxoon ne dañuy jox kenn ku ci nekk terrain gannaaw buñ la daggee 36 mois mais liñ seetlu non seulement terrain yi nga xamante ni Modou Khoule wax na ne am na ko amu ko benn ndax ay toolu jàmbur la dem fekk jël tool ya dal koy dal ñu koy wan nañu lii mooy terrain Sébikotane dem jas gis saat yeneen toolu jàmbur nañu fii mooy seen terrain yi jas demaat Lagrose bi nga xamante ne mooy scandale bi gën a garaaw mooy ay terrain jàmbur la jëlaat Lagrose dal koy attribuer ay nit dem complot ak ay nit génne ay papiers yu tuddee acte administratif yoo xam ne kenn xamul fu mu jógee daal koy jël jox agent yi fa nekkoon yépp bi ñu demee ba bëgg a tabax suñu terrain bépp agent boo xam ne dem nga ci terrain ñetti sites yooyu nga xamante ni moom la ñu wax ne da fa bëgg a def benn mool li ñu wax mooy yéen seen terrain yi lii amul plan euh, nikat mooy numéro d'identification cadastrale amu ko benn terrain yi deux terrain yi kenn viabilisé wu ko trois terrain yi kenn morcelé wu ko loolu nag bu ngeen gisee moo du xulee mën koo def toog di dox ci dëkk bi ba léegi dafa am ñoo xamante ni dañ ko jàppale ñun nag liñ ci waroon a def lu bëri def nañ ko fi nga xamee ni foofu lañu waroon a dem fu bari def dem dem nañ fa man mii di wax ak yéen en 2018 maa créé benn euh, collectif ñu def pétition ñu porté ko plainte au niveau du procureur de la république procureur transmettre plainte bi DESCOS bañ demee DESCOS ñu entendre ñu mu ne dans deux semaines il va régler tous ses problèmes mais deux semaines yi yaakaar naa mën na deux cent semaines te man nag ma jàpp ne réew mi ñu nekk réewum droit la te yoon dëkk bu mu am bu nekk ku def lu mel nii ay père de famille yoo xam ne ñii liggéey nañ ci aéroport ba retraité ñii décédé nañ ñii kenn xamatul ci lu ñàkk ci location guddi ak bëccëg ñu leen di sonal te mënoon a am seen terrain tabax ko bi nga xamante ne loolu am na ñu porte ko plainte à chaque fois bu ñu ko porté plainte li muy wax mënul justice mënulu ma dara li tax muy wax loolu nag lenn dong la dafay am ñoo xam ne dañ koy jàppale waaye ñun en tant que citoyen am nañ yaakaar suñ justice xam nañ ne justice bi moo ngi def liggéeyam loolu xam nañ ko ndax à chaque fois bu ñu ko porté plainte dañu entendre mais suite bi mooy suñu problème suite bi mooy suñu problème parce que dañuy toog am yàgg rek mu toogaat parce que mënu leen comprendre lu tolloog presque mille pères de famille ñu xool ne préjudice bi mën na un milliard un milliard nit yor ko yoreel ko ay nit ba pare di daxawaalu ci mbedd mi loolu amul benn dëkk amul fenn fenn fenn fenn te loolu bu amee nag dafay wane ne am na ñu koy jàppal tànk ko dooleel te loolu nag ñun moo taxoon tey ji fii ñu dajaloo di def benn point de presse agent yi nga xam ne ñoo nekk euh, LAS agent yi nga xam ne ñoo nekk euh, ADS agent yi nekk AIBD agent yi nekk ANACIM agent yi nekk autorité des aéroports ak agent ak quelques gendarmes ak policiers yi nga xam ne bokkoon nañ ci euh, coopérative boobu ñoo réunir fii tey doon def benn point de presse di ñaan président la république mi nga xamante ni tey mooy gardien de la constitution mu dimbaluñu ci ces soi-disant promoteurs yi nga xam ne nekkewuñ dara ci dëkk bi lu dul arnaqué citoyens yi ñi dajale seen alal ñu leen di nax di jël seen alal di ko di ko di ko fooye di ko taxawaaloo te kenn mënul leen dara loolu moo tax tey jii nii ñuy ñaanaat président de la république dossier bii nii nii nii nii mooy les terrains des ex agents ADS ak ANACIM ak ALS président de la république moom lañ ci yaakaar mu dimbali ñu si ndax xam nañ ne moom mën nañu cee dimbali ba Modou Khoule mi jox ñu suñuy terrain ci ñetti sites yi ma leen wax jas Lac Rose ak Sébikotane su fekkente nag Modou Khoule deful loolu na xam ne ñun duñu bàyyi moom ak ñi nga xamante ni mooy ñi nekkoon ci administration ADS doon ko jàppale nañ xam ne ñun duñ mës a bàyyi ndax suñu alal la ñoo ko liggéey ñoo ko moom duñ ko mës a bàyyi tey duñ ko mës a bàyyi ëllëg dañ koy topp jusqu'au bout ndax fii père de famille buy liggéey fii li muy njëkk bëgg mooy am fu dugal njabootam ëllëg loolu mooy objectif per de famille bu bu nekk fii rawatina ñi nga xam ne dañoo nekk di liggéey ci aéroport yi nga xam ne ku ne xam na métti gi liggéey yi yi metti ñun nag dañuy lancé benn appel di wax Modou Khoule ne ko duñ la bàyyi bu plainte bii ñu la mujj a plainte ba nga xam ne di moo ngi nekk au niveau de la DIC aboutir danañ demaat ci procureur de la république danañ porté waat plainte te bi yoon tous les membres yi nga xam ne ñoo bokk ci coopérative nga xamante ni ñoo ngi toll presque au nombre de mille ñoom ñëpp la ñuy ñaan ñu préparer ay plainte dem au niveau du bureau de euh, du procureur porté waat ko plainte pour mu xam ne dëkk bi am na justice te ñun yaakaar nañ justice suñu réew ñun yaakaar nañ justice suñu réew moo tax ñoo ngi ñaan procureur de la république suñu dossier bi nga xamante ni ñoo ngi porter plainte au niveau du procureur général y a même pas deux mois mu dimbali ñu si gaawal ci moo Modou Khoule jox ñu suñuy terrain parce que loolu dañ ko soxla.